asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xibaar yi mujj jëm ci tàggat yaram waaye nag laataa loolee kii gën ci paas bi ci abonné dañu lay ñaan nga abonné te bés kolos doon notification bi ngir kat loolee dina waral vidéo bu ñëw yaay doon ki koy njëkk jot ngeen di commentaire di aimé loolee tamit dina dooleel chaîne bi bu leen fàttee nag di dal di bés like bi léeg-léeg dañu koy xool lu mat junni nit seetaan vidéo bi waaye nag ñu dal fi ñu dal di fi gis ñaar téeméeri like maanaam loxo bi ci gi na gaa yi di ko bés junni nit bu ñu ko seetaanee mu nekk 200 like cent nit bésuñu laa yëkk bi te nag loolee jëfewul garaatuwul la doo ci ñàkk dara waaye nag bu leen di dal di partage bi bëgg nañu nag bala ñoo àgg ci weer wi nga xamante ci ni moo di weeru septembre ñu dal di ciy matal fukki junniy abonné jamono ji nag ñu ngi ñaari junniy abonné te bëgg nañu matal fukki junniy abonné kon nag partage leen ko ki di Casemiro nag altine la ñu koy daal di delloo njukkal ca Real Madrid waaye nag moom Casemiro ba ba ñu bi kat jël na fa lu toll ci trophée juróomi ligue des champions moom jële di Casemiro di doomu brésilien yëmut foofee nag jël na lile di liga santander ñu gën koo xam ci championnat Espagne jël na ko ca Real Madrid lu toll ci ñetti yoon waaye nag jël na lii lile di super coupe de Espagne ca Real Madrid ñetti yoon jël lit li nga xamante super coupe de Europe foofee ca biir Real Madrid moom kili nag di Casemiro yëmul foofee jël na mondial di këlam yoon dal di jël li nga xamante ne moo di coupe de benn yoon ci Real Madrid kon nag doomu brésilien bi la di Casemiro loolee nag la jël ci trophée ca Real Madrid mu nekk taarix bu rëy rëy boo xamante ni bind na ko moom ki la di Casemiro ca Real Madrid ndax kat loolee nekkul lu ndaw te it loolee jël na ko ci trophée ak këlëbam bii di Real Madrid ah, moom doomu brésilien waaye nag Real Madrid mën nañu ne ñi la di merengue yi perte nañu kenn nit koo xamante ni bokkoon na ci milieu milieu terrain yi sa Espagne moom Casemiro di doomu brésilien bu musaa mu samp Casemiro ak crédit Toni Kroos boo bee milieu de bu ñu dee di nga xam ne di xam ne milieu de terrain yu fiable ñoo la téye kon nag Real Madrid manqué nañu benn joueur boo xamante ni fasoon na lool ci histoire de Real Madrid waaye nag Real Madrid ñu nekkoon benn milieu de terrain boo xamante ni àndoon nañu nekkoon ay xarit taarix bu ne nag bind nañu ko ci Real Madrid moom Casemiro nag dal di jugee ci Real Madrid wutali Manchester United loole nag mu nekk loo xamante ni dina nekk lu triste ci Real Madrid ndax kat dinañu manqué benn joueur boo xamante ni bëri woon na xadar daan bari ci max yi mën nañu ne Barcelona Real Madrid te classico danañu manqué waat beneen grand joueur gannaaw ba nu perte Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi Neymar Senior keneen toppaat na ca ba tey ji moom Kylian Mbappé xam ngeen ni ma ngay woy nag di mere kile di Neymar Junior kon nag mën nañu wax ne am na ay match yu ñëw ci kanam ñoom ñaar bonu rek dewul seen i procès ñoom ñaar ñu gën leen jubaliwaat dina nekk loo xamante ni dina xaw a yàqu lool tuuti footballu parisien germain ndax kat li ko waral moo di ñaari nit bu ñu déggoowul ba pare bokk benn club bu ne fa bal ba pare nuñu ba pare kenn yéenewul sa bopp mu dugal loole nag dina nekk loo xamante ci ni du yàq ci ñoom ñaar seeni mbir lool waaye nag club ba la yàqal ndax Mbappé bu demee ba tiim kaaya ay jour marqué ko Neymar taxaw fi di ko laaj mu lànkande du ko ko jox xam ngeen ne loolee kenn du wax dara Mbappé kenn du wax dara Neymar waaye nag club ba ci boppam ñoom ñooy dal di am problème kon nag loole waa Paris sax germain war nañu ko régler nu mu gën a gaawee ngir dal di jubale kële di Kylian Mbappé ak Neymar Junior moom Kylian Mbappé nag moo njëkk a di def lii ngir mer ak kële di Neymar Junior ndax kat dafa moom ci boppam dafa xam ne Neymar yeewu na Messi yeewu na loolee ko métti dañuy dem ci doomu Sénégal bi la di Ismaïla Sarr xam ngeen nag club yu bari dañu ko bëggoon waaye nag club bi nga xamante ne moo di Crystal Palace nekk ci championnat bu Angleterre club boobee nag ñu dal di fay gisoon benn doomu Sénégal muy ko Kouyaté mu dal di fay quitté wutali Nottingham Forest moom doomu Sénégal bi xam ngeen ne ne ca Watford te Watford ku ko xam-xam ne wàcce na deuxième division bu Angleterre loole nag annoncewul doomu Sénégal bi la di Ismaïla Sarr ba taxoon mu bëggoon a soppi xar kanam dafa mel ni nag waa Watford dañoo wax ak moom pour mu dal di fay resté waaye nag waa Crystal Palace jamono ji ñoo ngi négociation ak agent wu kii di Ismaïla Sarr pour dal koy wax mu quitté foofee ci biir Watford mën na dal di wutali fa nga xamante ci moo di Crystal Palace waxtaanu nag ma ngi bëgg sori diggante Ismaïla Sarr ak ñi di waa Crystal Palace rawatina nag agent wu Ismaïla Sarr ak ñi waa Crystal Palace ñoom club bi nag nee nañ bëgg nañu lool sax nu mu gën a gaawee ñu dal di am kii di Ismaïla Sarr ndax dafa mel ni jour mondial la te man mën na dugal te it na la muy defa ba tey ji xibaar yi moom kile la nag di Rashford du xam ngeen ne doomu Angleterre ne ca championnat bu Angleterre ne ca club bi la di borom problème yi club bi di li kenn xamul mooy attaquant ya baaxul wala milieu wala défense ba te lépp a baax course ba baax te mënuñu am ay ndam yu set wecc loola nag waral ñëpp tiitaat ci seen i mbir ñoom ñu ne nag di waa Manchester United kii di Rashford du andiwaat leen beneen problème beneen jaaxle ne leen dama fi bëgg a quitter nu mu gën a gaawee ndax kat club bu ma nga koy laajte te club bu ko nangoo fay la muy laajte club bi bu nangoo fay li nga xamante nangu nañu ko fay ñoom waa Paris Saint-Germain kon nag mën nañu ne li ci des bareetul moom Rashford du quitter Manchester United ci championnat bu Angleterre dal di wutali championnat bu France club bi nga xamante ci ni moom moo di Paris Saint-Germain waxtaan nag ma ngay wuy di sori diggante Paris Saint-Germain ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Manchester United te Erik ten Hag nag dafa mel ne moom bëggul benn yoon joueur bu ne dafa bëgg kiti ci club bi nga xamante ne nii moom moo di Man United mu la fay bàyyi ba tey ji xibaar yi kii di Bernardo Silva di doomu portugais nekk ci club bi la di Manchester City ci championnat bu Angleterre xam ngeen ne gone gi ay club dañu ko bëggoon rawatina nag club bi la di Barcelone moom nag mu ne bëgg na ko lool te nag fu ci benn yoon ndax nee na dafa bëgg kile di Bernardo Silva te loolee nag dafa mel ni ma nga ama am solo ndax moom nee na benn yoon bàyyi Bernardo Silva muy dal ne ca foofee ca biir Manchester City ñoom nee nañu dañu ko bëgg a jëlee ca Manchester City indi ko ca championnat bi Espagne rawatina club bi la di Barcelone te loolee nag waxtaan waa ngay bëgg sori lool ci diggante ñi nga xamante waa Barcelone ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Manchester City pour ñu mën a jël kile di Bernardo Silva dal di koy andi ci club bi nga xamante ne moom moo di Barcelone ñu ne di waa Manchester City nag ñoom lañu ko jaayee ba léegi rek fa ñu ko fixé woon lañu ko fixé muy lu toll ci quatre bu ko waa Barcelone andee danañu leen jaay kile di Bernardo Silva ba tey ji xibaar yi Frenkie nekk ca club bile di Barcelone xam ngeen ne Barcelone dafa bëgg Bernardo Silva te ñoom bala ñoo mën a am crédit Bernardo Silva force ñu taqale ko crédit Frenkie de Jong loola nag moo waraloon ñu daal di koy bëgg jaay ab club bu ko soxla woon wala sax ñaari club ba ñetti club wa ndax club bi nga xamante ni moom moo di man United bëggoon nañu ko Chelsea bëggoon na ko Manchester City ba yaax na dem mi nekk te ñoom ñoo ñëpp naka ba tey bu ñu sañoon am Frenkie de waaye dafa mel ni gone gi ci boppam moom nee na nanguwul dem benn club boo xamante ni da koo bëgg loole nag moo waraloon mbir yi xawoon a yeex lool ba tax moom gone gi sax ma jégul am benn club jamono ji waaye nag ma ngi ci nekkoon di Barcelone loole nag moo tax di yeexal mbir ñoom waa Barcelone nee nañu dañu ko bëgg jaay te moom na bu sañoon waaye nag waxtaan ma ngay wéy di wéy ci diggante Barcelone ak la di Manchester United rawatina nag Barcelone ak agent wu di Frank de Jong ba xam dafay resté wala day quitté foofu ca biir Barcelone waaye nag xibaar bu ci resone da ngeen ko jot moom Aubameyang ba tey jii di jour Barcelone xam ngeen Niang bul attaquant buy dugal loole nag waral mu nekkoon ci dossier yi Aubameyang waaye nag jamono ji may wax yéen nag ba tey ji ci maxtusal nee noppee gudde ndax kat attaquant la bëgg te gone gi day dugal ay bi yu bëree bëri tey mën na la mi def loole tag moo waral ba tey ji rek ma nga cay wax ndax nee na noppee gu ca benn yoon ngir am kilit yi Aubameyang te moom gone gi dafa mel ni Barcelone googi amoon na fa tendance nag saison prochaine waaye jamono ji nag xam nañu ne kii le di Lewandowski di naaf bu man la muy ñëw na ca Barcelone te nag dafa mel ni bu dee ñëw na fekk Aubameyang temps de jeu dina xaw a perte tuuti ab temps de jeu boobu ndax kat Robert Lewandowski jour mondial la te Barcelone li ñu ko jëndee bari na te xam nañu ne gone googee dafa mel ni kat mu gën a développé tuuti mbirum kilé di Aubameyang loole nag moo waral ñu dal di koy bëgg jël dal di koy jaay waa Chelsea ñoom waa Barcelone nag jaayaguñu ko moom rek waaye teg nañu ci yeneen seen ngir bëgg leen a jaayaata moom Memphis Depay ba tey ji di jour Barcelone xam ngeen ne Barcelone dafa bëgg wàññi ay jouram ngir kat mën a gën a assurer waat joueur yi mu bëgg recruter waat ca Liga ba waaye nag kilé di Memphis Depay moom ay mbiram ba tey ji fa mu tolloon rek daal day waral moo di ñile di waa Juventus ñoom la ñu waxoon rek ca la ñu yem muy 20 millions bu ko waa Barcelone nanguwee mën nañoo jënd kilit yi moom Memphis Depay loole nag waxtaan waa ngay wéy di wéy waaye nag ji rek dara officiel agul ci diggante ki nga xamante ci ni moom moo di moom waaye nag ba tey waxtaan waa ngay wéy di wéy ci diggante Barcelone ak ñile di waa Sifantis ngir ñu mën a dal di recruter ki nga xamante ci ne moom moo di Memphis Depay te moom gone gi nangu naa dal di quitté te Barcelone waaye nag ñun li ñu xaw a jaaxal moo di gone gi bëgg naa dem club ba bëgg na ko Barcelone nangu na koo jaay ba pare mbir yi dal di yéex waaye nag moom Memphis Depay lu ca masoro sani dana danañu leen ko dëkkal fii ci Le Monde Sport waaye nag fii nag la ñuy dal di ndar keppee xibaar yi ndax ki nga xamante ci ne moom moo di Ronaldo borom problème yu bëri ya ca club bi li di Manchester United loole nag waral am ay club yoo xamante ci ni club yu ndaw lan ñoom dal di wax ne dañoo bëgg kile di Cristiano Ronaldo te moom gone gi it nanguwul woon tontu benn club ndax agent am da koo jox respect waaye it agent am nanguwul wax benn club am na nag ay club yu ñëwaat di demande waat kile di Cristiano Ronaldo pour mu dal di quitté club boobee di Manchester United dal di leen di rejoindre ñëw fa man faa bind taarix bu rëy rëy ay mbokkam ñu ngi koy souvenir di ko wax ne ko kat yow yaa ne ci yoon nekkal ci club bi nga bëgg waaye nekkal ci club buy dem Ligue des Champions loola nag moo waral gone gi gën a taxaw fi mu taxaw rek ah. kon nag dañu leen di jox dig daje rek ba ci kanam tuuti ak beneen vidéo bu leen fàtte nag di abonné tey bés kolos de notification bi ngir du recevoir leen nouvelle vidéo waaye nag bu leen fàtte nag groupe WhatsApp le monde sport neex tàng te nag analyse très pertinent